ñetteelu sabab bi war a tax ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy li ko yàlla jagleel ci ay jikko ci ay melo ci ay ngëneel ci ay taar ku ci meloon benn dong doon na dooy nit ñi di la bëgg mboolem buntu yooya moom kenn mu dajale ko sallallahu alayhi wa dafay waral ñu war ko bëgg wa innaka la ala xuluqin azim walaw kunta fadlan xalisa alqalb lan fadlu min xawlik fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadlan xalisa alqalb lan fadlu min xawlik yàlla subhanahu wa taala ni ci ngëneelu yàlla yërmande yàlla ci nga nooyee ci nit ñi boo nekkoon ku wif ku tàng keppaa ku ñagat kon nit ñi toddeeku la wala fi wax nañ ko ku tàng keppaar yendu yow daal waaw ku tàng keppaar yendu yow daal kon ki gafu ci moom sedd keppaar ga moo tax nooyu wet ga sallallahu alayhi wa sallam misaal la ci euh, waa illaa mbir ma gën naa bari lool nag day tax ñu seqi jeego yegg ci ahlul wafaa nan lañu meloon ci bëgg gi ñi matale àq yontu bi sallallahu alayhi wa nu ñu meloon ci bëgg yontu bi sallallahu alayhi wa sallam euh, baax na ñu gën koo teewlu surtout ñi ñi wuyu woo sunna léeg-léeg def ñu tuddee comme ëppal ahlul wafa ñi ci jiitu mooy saxaaba yi ridwanullah alayhim ña topp ca ñoom mooy taabiin nañu xool seen melokaan ci bëgg yontu bi sallallahu alayhi wa benn góor dafa ma doon nettalil mu ne dafa ànd ak du sàngam aj ñu ñëw ci jàkk yontu bi sallallahu alayhi wa bunt bu fiitee nga rawda bi mu ne eh, waa ji fan laa génnee ci moom nit ñi dañoo dajaloo bari lool di xaar yu ubbi bi bañ ne tëll ubbi bunt bi rek nit ñi riir door mu mën a ne lii jal ko ah. mu ne baatu li jaru ko bi man calaa ne kii moom fii laay tàbb moom ci Madina balaa màkk te nag xërte googu bi niru ëppal léeg-léeg ñu bari ci ñun la dal waa jooja daf ko fay da dafay dal ñu tuddee ko ëppal nangam jaru wala nangam kon baax na ñu xam ñi ñu jiitu woon te ñoom dëggantaan ñooy ahlul wafaa ñu indi am si ci ñoom seen bëgg gu dëgg gu ñu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la mel euh, bi jiitu gën a baax ci génération yi fi mos a jaar jox nañ ñu exemple yu gën a yàgg yu gën a rafet ci ni bëgg bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nga xam ne dañoo dëggu seen diggante yàlla te la ñu kóllëranteeg moom dañoo dimbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko yàlla subhaanahu wa taala gërëm leen ba pare gërëm loo leen ñooñu baax na ñu indi ay taxawaay ci yenn xew-xew yu xam ne danañu feeñalal sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan lañu meloon ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dayoo ba ñu yeggoon ci seen bakkan ak seen alal ak seeni waxtu tuuti ci kanam yonent bi sallallahu alayhi ndax amaan na lii danañu xamal dëggantaan nu ñuy bëggee yonent bi parce que ñooñu dañoo dund ak moom bëgg ko mbëggeel gu yàlla gërëm buñ ko xamee amaan na ñu soobu seeni yoon ñu itam ndax kat bëgg gu saxaaba yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg guñ ca dëggu suñ ko doon càmbar danañu laa yor ay fani fan budul ay weeri weer waaye danañ ci seet ay misaal biñ ciy njëkk a seet mooy cofeelu Abubakar ni Siddiq radiallahu anhu Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha mooy nett bi mu ne Abubakar radiallahu anhu bi nga xamee ne waa lislaam dem nañu ba yegg ci fanweeri nit ak juróom-ñett ñu dugg ci lislaam boobu foofu la ñu toll Abubakar dafa xërtal yonent bi lool ci nañu génn feeñ yonent bi ne ko Abubakar dañu tuuti waaye dañu di ko xamb ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ko nañ génn ñu génn mbooloo moomu nga xam ne mooy mbooloom lislaam boobu ci kaw suuf fanweeri nit ak juróom-ñett ñu ñëw ci kaaba gi tasaaroo ci booru jàkka ji nii ku nekk dem toog ci giir ga mu bokk même bu fekkee ne giir googa ci yéefar yi la ñu bokk Abu Bakar radiyallahu anhu jóg taxaw xutba nit ñi mooy ku njëkk a taxaw xutba woote jëmale ci yàlla ak yonentam saxiix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku njëkk a woote jëmale ci yàlla waaye ki njëkk a woo nit ñi jëmale leen ci yàlla ak yonentam ca xutba boobu Abubakar def ba mu tàmbalee wax yéeféeri dañoo riirandoo fa mu taxaw lañ ko songandoor yemuñu ci moom waaye ñaar fukk yeeg fanweer yeeg juróom-ñett yi ci des juróom-ñaar yi ci des itam ñenn ñu nekk ñu song leen di dóor ci boor jàkk ji dóor yu métte métte ama Aboubacar moom bosam dafa gën a ràññeeku moom dañ koo daaneel biñ ko daaneele Utbatu bnu Rabia moo toog ci dënnam yor ay daali karbet da xam ngeen daali karbet nga xam ne woo koŋ la moom lay dóor ci karam bi di dóor ci kanamu Abubakar dóor ci kanam gi ba xàmmeetuñu luy bakkanam ak luy cëlmaayam lépp maase ci néew foofa la banu tay mi ñëw ñooy nga xam ne ñooy géñoom Abubakar bien que ay yéeféer lañu waaye nag sotal seen mbokk deret tax na ñu ñëw daldi song ci kaw yéeféer yi ci eh, kaw Abubakar ba max leen ñoom ñëpp dàq leen ñu sori Abubakar ñu jël benn malaan sàngee ko Abubakar yenu ko amuñu weerante ne ab ñëw lañu ñu yenu daal di yóbbu ko këram dellu si waat ci kaaba ne yéen waa Qurayshin ñu ngi di seedeel ne su fekkee Abubakar dee na ci lii ñun banoo tey mi dinañu rey Utbatu bnu Rabi'a waaye nag par paru par deret la rek ñu dellu si waat ci Abu Bakar di upp di toppatoo di upp di toppatoo kañ la Abu Bakar ñépp gémmiñam mën a wax mooy ci mujjug bëccëg bi dañoo xëyoon dem de waaye a mën a waxaat yaa turaa maa hiya al kalima al ula biha رضي الله عنه أول كلمة قال بها ما فعل رسول الله بنققيه ci suba ba ci mujjug ba cës bi ba mu xëqee kàddu gi mu njëkk wax mooy lan la ñu def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nu ñu ko def foofa la ay mbokkam ëlbatiku ñoo ko korkoral di ko toppatoo ëlbatiku di ko saaga saaga ko xas ko yow amoo loo ñu waxal ñu lul kii daal di ëlbatiku ne yaayam seetal sa doom soo soo amee loo ko toppatoo nga toppatoo ko ñun dem nañu mer gedd yaay ji dégg na la gaayoo ci seetal ko ñam ak ndox gaa yi dem nañu wéet naa ak yaay ji mu indil ko ñam ak ndox yaay ji tegal ko waaye lan la wax yaay ji maa faala rasulullah lan la ñu def yonentu yàlla man loolu ma yittil du ñoom leen wax yaay ji ne ah wallahi man de ci ngay wax man xaw xaw ma si moom dara mu ne ko demal ci umu jamil bint xataab sœur Umar ibn Xataab booba tuub na mu ne ko demal ci moom boo demee nga laaj ko soo ko laajee da nga xam xam dara waaye ngir gis julli jullit ni mu war a amee secret yaay Abubakar dem na ci Ummu Jamil di ko laaj te yaay Abubakar nekk gu jullit ba mu demee laaj Ummu Jamil ne ko sama doom Abubakar mooy laaj Muhammad ibn Abdullah Ummu Jamil daf ko ne man xawma Abubakar sa doom boobu xawma Muhammad soo bëggee daal ñu ànd ma dem ba gis ki ngay wax kan la ma gis sa doom kan la parce que ragal na mu nekk Aisha Sekk bu xam ne dafay gëstu ay xabaar umu Jamil ne ko man xawma Abu Bakar sa doom jooju Muhammad ibn Abdullah mi ngay wax xawma ko boo bëggee nag ñu ànd maag yow ba ma gis sa doom jooju ba xam lu may ku may xam lam déet mu ne ko nañ def waaye iman manta na bulu yàgg bi umu Jamil ñëwee ba yegg ci gis Abu Bakar ak kanam gi niiwi waay bi ni mel dafa yuuxu mu ne ko inna qawman naalu minka hada la ahlu fisq wa inni la arju an yantaqima allahu min an yantaqima allahu lak mu ne ko nit ñu xam ne ñoo la def lii nit ñu bon la ñu kàccoor la ñu saay-saay lañ te pour daa mënoon xamu ko de waaye bi mu ko gisee rek torop ngëm gi daal dina sot ñoo def li kàccoor lañu waaye maa ngi yaakaar yàlla fayul la Abubakar déglu ko ci loolu de daf ko ne maa ko ala rasulullah dama ne yonent bi lu ko jot mu ne ko sa yaay ngi nii de day ngi dégg li ñuy wax de te moom du jullit de Abubakar ne ko bul am looy tiit ci moom am looy tiit ci wax ma mu ne ko mucc na mu ngi ci jàmmam dara jotu ko xanaa lii doyoon na waaye doyloowu ko mu ne ko fan la nekk mu ne ko mu nga kër alxam na ab alxam mu ne fa inna lillahi alayya fa inna lillahi alayya aalaytu an laa azuqa taaman wala sharaban aw aatiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam warlu yàlla te géñ naa ko ne duma mos ñam duma naanum ndox lu dul ba sama ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma gis nu mel mu ne ko nañ bàyyi ba suuf sedd tànk dal nit ñi génn tuñ bu boobaa ñu dem biñ demee ba suuf sedd dal nit ñaa ngi seeni kër da ngeen yaakaar ne Abubakar dafa waaxu tànkam mën a dem manu ko manu ko yaayam ak umu jamil ñoo ko gàddu seeni mbagg ba yegg fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk bañ yeggee ci yonent bi sallallahu alayhi Abubakar teg bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la xolam suba fees waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu Abubakar moom itam dafa ci kawam jooy xolam nooy lool parce Abubakar loolu yitteel na ko déedéet mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yaa ngi ci jàmm moom man aw ma problème amul solo dara jotuma lu dul rek li ma kàcceel bi def ni sama kanam waaye xam nga li ma yittee léegi sama yaay ngi ni yaay ju baax ci doomam la damaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, yow ku yàlla barkeel sa ñaan la damaa bëgg nga ñaanal ko yàlla ndax yàlla gindi ko ci lislaam moom loolu ko yitte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal soxna si ci même taxawaay yàlla subhanahu wa taala génne ko ci lislaam mosoo ko ci safar mbokk yi ci benn misaal la bu eh, ibnu kasir génne ci as-siratu nabawiyya am na misaal bu ñu jëlee ci ali ibn abi talib radiallahu anhu fekk dañ koo laaj ne ko seen bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu meloon ali mu ne kaana wallahi ahab ilayna min amwalina wa awlaadina wa abaina wa ummahatina wa min almaa il baaride ala sama ali mu ne gëñ naa ci yàlla ne yonent bi moo ñu gënaloon suñu alal suñuy njaboot suñuy waajur moo xam baay wala yaay moo ñu gënal ndox mu sedd ci waa ji nga xam ne mar daf koy bëgg a rey nii ñu bëggoon yonent bi salaa sallam moo raw loolu ñu xool ku mel ne Amr ibn al-Aas radiallahu anhu Amr ibn al-Aas bi mu tolloo ci sukuraat di bëgg génn àdduna dafa mooyu kanamam doomam Abdullah moo ñëw fekk mu ngi mooyu kanam gi di jooy mu ne ko ma papa lii lan yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégalul la woon ci woon ci nàngam tuddal ko ay mbir yu ko yonent moom ne ko man de sama dund ci am ñetti étape étape bu njëkk bi damaa nekkoon ku bañ yonent bi sallallahu gën a tar ba booba amul lu ma bëggoon rek lu dul man koo ci place rey ko booba moom xam naa ne su ci dee woon safara laa gannaaw gi yàlla subhaanahu wa taala def lislaam ci sama xol ma ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal loxoom man ma bank sama loxo yonent bi ne lu la jot ma ne ko dama bëgg a sartawoo yonent bi ne ma sartawoo lan ma ne ko dama bëgg ñu jéggal ma samay bàkkaar mu ne ma xanaa xamoo ne lislaam ci lislaam day màbb la ko jiitu woon ci bàkkaar xanaa xamoon ne gàddaay day màbb la ko jiitu woon xanaa xamoon day màbb la ko jiitu woon wallahi gannaaw loola amul kenn ci ku ma gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa bët xool ko xoolin wu fees mënu ko woon ndax wet ko ndax màggal laajoon naa melal nu mu mel mënuma ko xal leen gi cofe mbokk yi yegg na ci nee na suñ ko laajoon jamono yonent bi nu mu mel mënut koy melal ndax cofeelam yegg na ci màggal gi ko màggal bëtal mënut xippi xool yonent bi ba ba mën a euh, décrire melokaanam carrément mu ne booba jamono jàpp naa su ma ci deewoon na bokk ci waa aljana yaakaaroon naa su ma ci deewoon ma bokk ci waa aljana li ñu yitteel ci xista bi euh, muslim moo ko solo saxi xam li ñu ci yitteel mooy cofeel gi ngeen dégg wallah wallahi bu ñu nattalee mbëggeel gu xam ne yegg na ci nit ki nga dund ak moom lu toll na li nga dund ak moom ba mu génn àdduna buñ la doon melalal nu mu mel dooro ko man ndax moso manoo feetal sa bët ci xool ko ndax mbëggal ak wéyal mbokk yi ñu xam ne am na lu ñuy tuddee ëppal du ëppal am na muaas ibnu amr ibnu jamuux am muaas ibnu afra ñaari waxambaane ansaar lañu Abdurahman ibn Awf moo ñuy nettalil seen saxawaay Buxaari Muslim génn nañ ko ci saxi seen saxi Abdurahman ibn Awf mu ne ci xare Badar bi ñu taxawee ci sàppe si dama tombe ci ne sama ndeyjoor dama xool ma gis ci ma féete ndeyjoor daal xale la sama càmmoñ moom it xalee fi nekk ñaar muy ñaari xale yu bokk ci euh, ansaar ma wax ci sama bopp ne ah man daa wax dëgg yàlla ak ma nekk ci diggante ñu gën a dëgër ñaar ñi mu ne waaye li dalal sama xel damaa toog ba yàgg kenn ki kobos ma ne ma tonton ndax xam nga Abu Jahl ma ne ko waaw ah, xam naa ko de loo soxla woon mu ne damaa dégg ne dafa bañ yonent bi di wax ci moom lu bon wallahi génn ci yàlla ne su ma ko gisee maa moom sunuy yaram du teqale ko du dul ko gën a gaaw dee ci ñun ñaar mu ba muy daanee rek morom mi moom itam kobos na ci geneen wàll gi laaj na laaj bu mel bi ma kii laaj ma tontu ko mu wax lu mel na lëkkale wax dane ah kon xel daal na nis kiis rek ma seen abu jaxal bi ma seen ma kobos leen ñoom ñaar ma seen waa seen waa jàng na wi ñu riira ndoor songu koo ndoor seeni jaasi ba teqale ko moom mu sedd bi ñu dawut ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko rey Abu Jahl yonent bi ne ku ko rey kenn ku nekk ci ñoom ñaar mu ne man yonent bi ndax seeni jaasi fomp ngeen ko kenn kenn fomp na jaasi ñu ne déedéet fomp guñ suñuy jaasi yonent bi ne ma xool jaasi yi mu xool seen jaasi ñoom ñaar mu ne yéen ñaar yéen a pare yéen ñaar yéen a pare waaye bagage ya nekkoon ci waruwaayu Abu Jahlin daf ko jox Muaas ibn Amr ibn Jamuh loolu amaan na day tegtale kooku la jaasin gën a dugg wallahu aalam li ma bëgg wax fii rek mooy ñaari xale yi ñaari waxambaane yu ndaw yi seen yitte rek mooy comme kii dafa bañ yonent bi di wax ji moom lulus noona bu ñu tampasloo ak moom buñu ñu teqale ko lu du ko njëkk dee bakkan laa ko àpp maanaam jox sama bakkan laa pare lu jiitu may jël bakkanam kan ci ñun moo toll foofu mbokk yi ku nekk na tontu boppam amma bu ñu ñëwee ci taxawaayu abu talha dafay gën a yéeme abu talha radiallahu anhu keroog xare uxut bi nga xamee ne ñu bari ci jullit yi daw nañ abu talha dafa ñëw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xeex waaye li yéeme mooy défense bi mu am di xeex mu ngay moom mu ngay xeexee mais défense bi mu ngi koy aare yonent ci gannaaw nekk na ku mën a fett lool fu mu sànni day day jam bi muy sànni fett yonent bi di yokkoo yokkamte ko mu ne sa bopp sama mooy sa défense kon bul yëkkati ko lu tiim maanaam sama dënn mooy sa défense ngir fett ku jëm si ci yow yem ci man te boo yëkkati ko lu ma tiim mbir mi mën na maa romb mbokk yi ndax imagine ngeen gi chauffeur d'abord bouclier bi mu yor mu ngi koy aar yonent bi geneen wàll gi mu ne dënn mooy défense bi lii day nar yem ci bouclier bi lii yem ci dënnam ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc de dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen cofeel ci moom ni la newoon am na bu ñu ñëwee ci ñi nga xam ne gisuñu yonent bi te ñooña war a nekk carrément nattukaay ci ñun muy ak taabiin muy meloon ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa amaan na taxawaay yu bare bari la waaye dañ ci génne yenn exemple danañu doy nañ jël ku mel na ayabu Sixtiyaani yi imaam Malik ibnu Anas rahimahullah mooy nettali mu ne man de nettalu ma leen xadiis bu gën a dëgër fi man gën a am place ci man bu ma jëlee ayub lu ko def Malik mu ne damaa ànd ayub ci aj lu jiitu loola mosuma koo déglu ci xadiis mosuma jël ci moom benn xadiis waaye bi ñu ci aj gi ma seetlu fu mu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa rek day jooy ba ma yërëm fu mu tuddee yonent bi day jooy ba ma yërëm ko mu ne ba ma gisee ci moom loola booba la màgg fi man ba ma gisee ni mu màggalee ni mu ormaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci laa commencé di jël ci moom xadis di bind ay xadisam ndax lan cofeel gu mag gi mu gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexit gi mu gis muy jég jeexitalu saa yu tudde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndax même Malik moom mucc na ci loolu déedéet euh, Musab ibn Abdillah mooy nettali mu ne Malik suñu nekkaan ak moom bu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis karamam soppeeku mu sëngeen sëngéen ba loolu mujj na déranger ñi nga xam ne ñooy toogandoor ak moom bis ñu wax ko ko waaye biñ ko waxee mu ne leen bu ngeen gisoon li ma gis dootu leen na yedd ci li ngeen gis ci man ma gis leen na ci li ngeen gis ci mu ne leen man doon naa gis Muhammad ibnu Munkadir nga xam ne moo doon sang jàngkati alquran yi daawuñu ko laaj xadis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mukk lu dul ne gannaaw bu ñu ko laajee xadis bi jooy na ba ñu yërëm ko lu njëkk mu ñuy nettali la xadis saa ñu ko saa yu ñu ko laajaan xadis yonent bi dana jooy bañ yërëm ko mu soog ñoo nettali la xadis mu ne man gis naa Jaafar ibnu Muhammad ku bari kaf la ku bari itam muuñ la woon waaye su tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis kanamam furi ba mel ni dafa soon te seetlu leen lim la njëkk a ku bari kaf la ku bari muuñ la waaye bu tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wa kanamam day furi ba soon mu ne gis naa ko muy ku xam ne daawul nettali xadis yonent bi lu du bata jaat tey jakk balaay nettali ci xadis bata mu jaat tey jakk mu ne moom Malik topp naa ko jamono ñetti mbir laa gis ci moom fu mu ko gis daal benn mu ngi julli wala mu ngi ci koor wala mu ngi jàng alquran mbir mu ko amul soxla bu ca dugg waaye noonu la meloon ci saa yu tudde yonent bi sallallahu alayhi maa leen ne dëggantaan kooku mu ngi bokkoon ci borom xam-xam yi jaamukati yàlla yi ci ñu ragal yàlla ci jaamu yàlla maa leen ne gis naa Abdurahman ibnu Qaasim su tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wa yaramam day soppeeku ba mel na deret ba mel na day tuur deret bu tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaramam day soppeeku xonq cooy ba ko sàng lam ne ñam day wow ci biir gémmiñam dootu ko mën a eh, teqantal ngir lan gum am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Maalik ni daan naa dem ci Aamir ibn Abdullah ibn Zubayr kooka waxuma su tuddaan yonent bi waaye suñu tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamam rek day jooya jooy ba bëtam dootu desati roon rek yéen waa sunna tey bu ngeen gisoon li eh, li ci seen dundeen lu ngeen ko tuddee ngeen ki dafa ëppal maanaam ñi Maalik wax melokaan yi Maalik melal yépp bu dee ñun tey dañu naan ñii dañoo ëppal nag waaw ñii dañoo ëppal lii nangam ak nangam Malik mu ne Ibn Shihab az-Zuhri ku uh, xaw ma nu ma ko mën a tuddee ci suñu dundu tey maanaam ku noo ab nooseur la woon xanaa ma wax loolu maanaam ab nooseur la woon maa ku ku doon dund dund bu neex la waaye nee na saa yu tuddaan yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam maanaam suñ tuddee yonent bi ci kanamam sax ñuy wax ba tudd yonent bi dafay mel na xamatoo ko xamatul la day mel na xamatul la xamatoo ko mbokk yi lii lenn lenn la ci misaal ci salafu saale fi leen bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeggale woon wax jii ma nettali Euh, alqaadi Iyaad moo ko nekk ci téeram bi mu tuddee ashifa bi taarif alxuquqi almustafa amma xasan albasri euh, teg na sunu kanam benn misaal bu xam ne rek jeexal na wax ji euh, te mooy bunt bu xam ne dafa cay wane matière yi yi dund yi wala yi ñu jàpp ne dund bu nit fi ñu yeggoon ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xoolal xeer wi di uxud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa ne uxudu uxud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uxud nii de am montagne la bu xam ne daf ñoo bëgg ñu bëgg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëkku tàndarma gi mu daan sukkandiku buy xutba lu jiitu mu am minbar bu ñu ko defalee minbar azuma mu yëg ci minbar bi xutba ak ku tànnal ma googu dafa jooy ba yuuxu mbooloo mi ci jàkk ji yëpp di ko yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc dem sax ko defal ko defal ko muy yëkkat ni xale bu doon jooy koy defal ni muy yëkkatee di dal di dal ba jooy yi dal xasanul basri mu ne waaw يا معشر المسلمين القشبة تهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه من أبنت سوفيك مورن جوي ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a dajeeg moom kon yéen julli bi yéen a waroon a gën a yo yéen a waroon a gën a xóot cofeel gën bu ngeen koy ëmbal moom yontu bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu xoolee ci jamonoy saxaaba yi gis nañu ay misaal ci bëgg yontu bi sallallahu alayhi wa sallam jamonoy taabiin gis nañu ay misaal waaye nag ci suñ jamono fii bu ñu wàccitee jong fii la ñuy tontu ahlul jafa fii la ñuy génnee ñetteelu xaaj mu mujj ci waxtaan wi te mooy ñu soofental ñi ñu soofental aqu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon naa ne tànnuma ña may tuddee ahlu jafa ñu nekk ci bitim islaam du am sens parce que ñooñu seenu jaf wa feeñ na ci euh, bañ gi ñu bañ a dugg ci waaye damay tànn sax nag fa jëmale dana gën a jege ñi askaroo sunna yonent bi sallallahu wa illa ñeneen ñi bu ñu leen doon melal dëgg-dëgg xalu xulu ni eh, eh, ko waxee xulu lañ di askane ñoom ak ëppal lañ leen di askane ma baamtuwaat kàddu gu ma waxoon ci njëlbeenu cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa euh, mooy su fekkee ëppal dafa nekk lu ñu ŋàññ loolu firiwut ne jullit bi dafa war a taxaw ci contraire ba te mooy yegg ci daraja soofental kii ëppal na kon yow da ngay soofental lim ëppal maanaam ñaar yi yëpp yu wàcc la kon jullit bi gëm yàlla ci dëggu ci diinaam dafa war a melo melokaanu diggu doomu ak màndu ci mboolem ay mbiram rawatina mbir jaamu yàllaam ak màggal yonenti yàlla ak jox leen seeni àq yi nga xam ne yàlla yeeyala na leen ko ci lu dul ëppal bu am na bu dee baatu soofantal bi ñuy al jafa buñ ko doon ci làkku arab jafa jafa an wa tajafa dafay dellu maana ñàkk taqalu ñàkk lënkalu bu ñu diw mi jaafil xilqa wala jaafil xuluq mooy nit ku ñegas ku dëgër la kon aljafa moom mooy contraire jokkaloo mooy contraire jokkaloo moo tax dañ lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana isa euh, sajada tajaafa wa isa rakaa tajaafa Euh, am na buñ ko delloo ci tam la xinu sharia dëgg-dëgg jubluwaayam mooy weddi doyadal soofental mbir yi nga xam ne yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jagoon kon maanaa jokkaloo bi fi dagg jokkaloo gi nga xam ne xol daf ko war a jokkaloo ak mbëggeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu lay soofental mbir mënta ànd bëgg ko bu soofental amee rek buumi xol yi doon jokkaloo bëgg loola day daldi dagg benn mu dagg ba jeex mu néew doole yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñu ko yàlla ka soofantal loola ca bëgg ko ak màggal ko lam koy jural gannaaw gi mooy mooy yemale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñëpp wax ne yonent bi mooy ñëpp a yem di nit teeg ci ko ba yemale nit ñi waru koo waru koo junj itam tax na bu ñuy xool danañu mën a géndeeku ci ñan sabab mu jur soofantal googu dañu naan ñoom ñaar ñoo ànd soofantal ak ëppal ñoo ànd bu ñu seqale ko lulut ci kanam ki xàmmee mooy ne fu waay ëppalee rek keneen dana indi contre attaque indi soofental maanaam ñu jàpp ne soofental raddu fial la maanaam aljafa raddu fial la ci xulu raddu fial la contre attaque la réaction la ci ëppal ñee dañoo ëppal ci àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi ñëw far soofental ngir lan dañoo gis palaas ya ñu placé bi palaas ya ñu seeni gaay léeg-léeg du doon mu dëppoo ak nag sharia mellale ñu nag nga naan ñi ëppal nañ ñii dañuy sooxantam rawatina par bu ñu gisee fi gaay yi placé seeni gaay fi ñu seen i kilifa ñu yeggale leen ci daraja yu xam ne yonent bi sallallahu alayhi amul daraja yu ne mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi moo ci ngëneel mooy seen sang mooy seen njiit ci lu amul benn tekki tàkk jiital ko ci kudul moom mooy la war ci mboolem bunti ngëneel yi kon dafay nekk soofantal gu ràññeeku ci jiital wala màggal wala fonk wala koowale kenn ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax da nga gis sax ñenn ci ëppalkat yi seenu ëppal ca ñañu ëppal moo leen jural soofantal yonent bi euh, jaadu ñuy wooxeteel kenn ci jullit yi benn considération bu mën a doon bu xam ne day tegtale dayo bu féetee kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag gis ngeen bu baax a baax ñu baree bari ci fonkeelu ñeneen jural na leen googa wàll jàng lu ñeneen ñi bind wala luñ askane ñeneen ñi ne ñoo ko bind alquran dama koo jëlale waaye siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom duñ ko gestu seen mbëggeel ca yooya la aju mu tiim nu ñu bëggee yonente bi sallallahu alayhi wa ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn considération lu dul ay mbir yu xam ne ay bidaa yi ñu sos di ko tëggoo ne mooy bëgg yonent bi mooy geestu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk xamuñu dara ci jaare nu yonent bi sallallahu alayhi buñ ko liir buñ gistu ay jeexitam rawatina baril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa loola jur kon ak sookantal ak ñàkk wekk ñàkk ormaal yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wekk ormaal ko euh, groupe boobu da ngay fekk kenn ci ñoom ñu ne ko euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee mu déglu la nga wax a wax a wax ba pare mu <laughs> ne dëgg la de waaye suñ kilifa gu baax gi de moom dafa doon wax nangam ak nangam yonent bi moo wax nangam dëgg la waaye ñun suñ kilifa gu baax gi dafa doon wax nangam ak nangam bi maanaam contraire la yonent bi wax loolu la kilifa gëmu askane ak mbaax doon wax te jàpp ne moo ëpp solo li nga nettee na yonent bee ko wax mbokk yi soppantal googu bu ñu koy xool ci suñu réalité danañ ko mën a teg ci tomb yi ñuy gis ay phénomène la yu xam ne ba ca jiitu mooy al bu'du an sunnati baatinan sori sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci sa biir mooy jaamu yàlla yi mujj nekk ay aada ci nit mu fàtte ne wutum tiyaabu ak ngërëmul yàlla moo ko ci yóbbu bàyyi lu baree bari ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam yu mu waroon a topp màggal ak ormaal bu ko waroon a ameel cofeelu xol gu sell gi mu ko waroon a dencal fàtte njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñàkk koo gëstu ñàkk a jox benn dayo sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu romb loola sax day yegg ci woyofal ko lool soofantal ko lool ci biir xolam loola nag automatiquement day jur ñaareel bi mooy albonde ani sunnati zahiran sori sunna ci lu feeñ biti te mooy bañ a jëfee sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yi feeñ moo xam sunna war la wala su ma doon jël ay misaal ci wàllu pas-pas la ci yonent bi sallallahu alayhi neneen ba pare nag wuutalee ay bidaa duñ yem ca waaye nga gis ak gàddaay bu ñuy gàddaay ñi nga xam ne dañuy dund sunna bidaa yi yonent bi sallallahu waxoon nañ ko sori nga gis ni see bu baax a baax nga dem ba xool wàllu sunnaay lekk sunnaay col sunnaay ay naafila moo xam naafe yi taxu julli farata yi wala witr wala ñaar rakka yoor yoor wala julli guddi wala yu dul yooyu ci ay sunan yonent bi moo xam ci sunnaay koor ya ci sunnaay palaas ya wala jamono ya nga gis ñu baree bari ci nit ñi ñàkkal ko solo lool jàpp ne lii daal ak ndollente la rek loolu màndarga la ci soofental yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soofental aqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag li jullit bu nekk war a gëm mooy ne nit ki xolom du jub dëggantaan lu dul ba te mu màggalee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko cër bu mu joxul leneen ci pas-pasam ak jëfam euh, ñetteelu soofental mooy raddul ahadisi saxiha léeg-léeg xadis yu wér ñoo jógee ci yonent bi sallallahu alayhi lay wu gën a teer à teer wu xam ne dana dëppoog nit ki ca nam bëggee rek mu sukkandiku ca ba tax mu weddi xadis booba li xel nanguwu ko non non li dëppoowul ak xel wala li non non li dëppoowul ak jamono bi wala non non suñu milieu wax dëgg yàlla nanguwut def lu ni mel wala rëy rëylu ci kanam nangu xadis wala tekk yi ñu koy interprété ci beneen façon bu xam ne dana wuute ak na ci yontu bi salaa sallam wala léeg-léeg sax ñenn ci ñoom dañ koy yeggee ci ne eh xam nga sawaay ci wéra di dafa bari xadis yu wér di yu wér yi kenn mënu koy ràññee mais balaa loolu nañu yem ci alquran bi ñu boole ñun ñëpp te nga ne kenn contesté wu ko benn góor ci lu matul weer dañu toog sama jàpp bu biir wax mu dem ba ne waa xam nga xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, eh, yonent bi ci dundam dafa am ay naafiq yu nekkoon ci wetam ñuy fent xadi ay fent ay xadis ah, bu dee alquran moom kenn weerante wu ko ñun ñëpp xam nañu am ñu ñu contesté mais yonent bi dafa amoon ñu nekk ci moom daan fent ay xadis di ko tas ci nit ñi mu waxee loolu ma feeñalal ko mer ne ko gis nga kàddu gi nga wax métti na sama saddit gii métti na sama saddit loos gi ngir xam ne da nga lu li ngay wax ma ne góor gi boo bu fekkoon jàng dara ci ilmu mustalah al xadis nii ngay waxee doo ko waxee yaa tura lan ngeen gis ne moom la ma góor gi tontu moo ne ma ku bind téere boobu ku ku bind téere ku bind téere mustalax mustalax xadis laa ilaha illallah ma ne ko nag góor gi man naa ngi soog a xam ne da ngaa war a jàng yi su fekkee almu mustalax yaa ngi ci tontu téere boobu ku ko bind foofu la ci sa xam-xam tool da ngaa war a jàng waroo toog di wax di weerante ma ne bu ma la nee ci fiq nangam ak nangam ndax daa ma ne ku bind téere fiq bi mu ne ma fiq matière la ma ne ko ni fiq nekkee matière noonu la ilmu mustalax nekkee matière su fekkee da nga cee toll ci buñ la ne xamuloo li ilmu mustalax wa nga ne ma ku bind téere boobu yow jàng ji nga jàng ji nga wax toll waroo toog taxaw fi di werante de wax dara ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ma ne kon soo fental ay hadis delloo ko ci moo xam xel la ko borom delloo wala jamono la ko delloo wala place bi li mu laaj wala rëy rëylu ci kanam nangu xadis yooya wala interprétation yooyu yëpp dafa dugg ci soofental xàqu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na euh, ma toog benn commerçant ci ci bitigam man a yéen da ngeen sonn xadis yi ngeen wax xadis xadis xadis xadis yu wér yi yu wér di loolu kenn ko mën a xàmme ah da ngeen di wax ma ne ko góor gi kaay magasin bu mag la yor ci ma ne ko xoolal sa magasin bi gis nga article yi fi nekk ni ñu wuute xeeti marchandise yi fi ni mu mu ne waaw ma ne ko ban laa la ci mën a laaj ñaata ci tontu wooma mu ne mu ah, na dëgg boo ma ci laaj rek dangay wax nangam lay jar de ma ne ko xam nga biñ may wax nangam lay jar ñi nga ci nat natt nga ci ñetti ak automatique bi nga may tontoo nangam lay jar natt nga ci ñetti mbir natt nga ci ñaata nga ko jëndee woon natt nga ci bénéfice bi nga xam ne boo ko ci amee jaral na la jaay nga nattaale fi war a dal man pour ñu waxaale wàcc si ci bénéfice bi nga d'accord bi ma la ne ñaata rek automatiquement bi nga may tontu natt nga ci ñetti mbir yooyu soog maa tontu ne ma nangam lay jar ci lu toll ak fab tëppi ni nga xamee sa marchandise bii nag am nañu ko ñu xamee xadis yonent bi sallallahu alayhi noona sa marchandise bi moo la noonu moo tax nga xamee noonu ni mu la am na ñu xam ne xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko raw xamee nañ ko noona kon delloo xadis yu wér yi ci argument yu soof yu fajut dara euh, bokk na ci mandarga yi gën a tegtal soofental teggin ci àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ibnu qayim rahimahullah dafa doon wax ne nit bokk na ci tek diggante mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a xalaat benn lënt ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu nangul lënt xelum boppam na jàpp ne xelum boppam moo am lënt waaye du wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo am lënt mu bañ a ne contradiction moo am ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye na tuumaal xelam a am contradiction ci mu ni mu comprendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam kenn du ko interprété ci benn sens bu ak bu na borom nangu ak réeram na borom nangu ak ñàkk xelam ñàkk xàmmee am wa illa ñàkk nangu loola la muy tegtale néew teggihin ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndem am na fa teggihin su ko defee sookantal googu day dal di feeñ bu baax a baax loolu Ibnu Qayyim mu ngi ko wax ci madaariju saalikin naka noonu al adul an sirati sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati jàdd yoonu dundinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam rawatee nag suñ jamono bii jamono bii nga xam ne wàllu information dafa yegg ci fa gën a kowe toxali xabaar dafa yegg fa gën a kowe foofu la mandarga soofental ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a feeñee day am fekk ay réalité wala ay jëf yu xam ne dañu naan ay symbole yoo nekk penk wala sowu ci réew yu dul yi jullit yi moo xam ñooñu ay politiciens lañu wala ay njiit lañu wala ay penseurs lañu wala ay philosophes lañu wala sax ay éducateurs lañu wala yu dul yooyu mbir mi gën a garaaw te nag mbokki nañu moytu mbir mi mën a gën naa garaaw ci compa comparaison bi xam ne day am ci lu bëree bëri ci ñun moo xam jubluwaay bi bu baax la woon wala bu ñaaw la nga gis waa ji gis benn tubaab bu wax nangam nangam jooja alquran ak sunna wax na ci ba pare ca ba kenn xamut mu gis ko naw ko lool ñëw di ko comparé wax yonent bi sallallahu alayhi yonent bi ne waaw pourtant gars yi ñi jullit yi day dëggal li yonent wax subhaanallah li yéeféer bi génnee mooy dëggal li yonent bi wax lii day dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ah ci siram nangam lay jur ci ñi jàngu xamuñu te la plupart loolu ñu koy def ay leader la ñuy tudd boo sàgganee ay wootekat la ñuy tudd lan lay jur mooy ak sikki sàkk lay jur ci ñi nga xam ne xàmmeewuñu seen alal gudd ñu jàpp ne kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekk mu amee solo te yëféer bi moom itam wax na wax ji amee solo noonu kon ñaari wax yi dañoo bokk am solo subhanallah yaasin sikki sàkk boobu jur dal awaam ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wala ci jëfam wala ci ay dafay soree ak li yàlla subhaanahu wa taala waxoon ne yonent bi dendul ak kenn in huwa illa waxyu yuuxa li muy wax nekkul lu du wax yu ko wax yu kon jiital waxi ñeneen ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jiital jaar-jaar yi ñeneen ci jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jëfi ñeneen ci jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di wane am soloom ak réyam te ña koy def ñan lañu boo doon tudd da nga naan mbalit lañu ci société yi boo doon laajee lan mooy seen cër ci diina ñu ne la kooku benn rédacteur en chef bu nangam moo wax nangam ak nangam ah benn écrivain nangam moo wax nangam ak nangam waaw benn grand penseur moo wax nangam ak nangam ci ñooñu nga xam ne dañu leen def sang ti mati ñu sang wala dañoo def seen bopp sang ci lul ak cang def seen bopp njiit ci lul ak njiit ñu wax di ko dendale ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax di jiit di jiital wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàll la ci wàllu soofental sunna yonent bi soofental ak yonent bi sallallahu soofental ci ak yonent bi sallallahu alayhi xiina alxadis an annabi sallallahu alayhi wa sallam bii daanaka kenn ci ñun mucc ci bii daanaka kenn ci ñun mucc ci mooy dindi wegeer wegeer ci wax ci jamono bi ñuy nettali xadis yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono bu ñuy waxtaane yontu bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay toog ci benn jataay sunuy jataay nga ci fi ñuy waxtaanee wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga gis rocc gi ñenn di rocc wegeel ci wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ca ba ñu dee kay waxa ngay wax ñu ngay wax yeneen mel na kii moom waxtaan wu jaar rek lay wax ci yàlla mbokk yi ngeen xool li ñu déggoon ci taabiin yi léegi kenn ci ñoom bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam yaramam day xonq ba mel na deretee xelli kenn ci ñoom bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam mu mel na mosut laa xam mosoo koy xam kenn ci ñoom bu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làmmeñam woow ci biir tàqum gémmeñam dootu ko mën a yëkkati yow nga toog ci jotaay bu ñuy waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na xam fulaan xam fulaan yonent bi salaa sallam alo am ah oui oui am keelee wax la yonent bi wax moom mun a alo d' accord d' accord mais après la ilaha illa allah xool leen Malik ibn Anas imam daaru hijra comme ni ngeen ko déggee sànq bu tuddaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam karam gi day soppeeku mu sëngee ba loolu mujj dérange ñi mu toog ngeen dégg li ñu wax ci ayubu sextiyaan yi bu ñu bu daan waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa bu tuddee yonent bi day jooy bay yërëm ko ak ñeneen ak ñeneen ñun waxi yonent bi day jàll ci sunu wet kii wax a ngi wax ñun ñu nga nekk ci ñu nekk mel na lii moom benn waxtaan wu jàll rek suñ kanam la wala ab bu doon woy rek jaar fi nii la Euh, wala waxi euh, benn waay euh, bu dul dara rek la loolu mbokk yi ñàkk a wekk ñàkk a ormaal wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñàkk a yëg màggal gi nga xam ne wax yonent am na ko place te war koo am place it ci xoli jullit yi waaye ñu jàppee ko ñàkk paal ñàkk yitte ñàkk ormaal moo na yàlla subhanahu wa taala dafa noon yaa ayuha alladina amanu la tuqaddimu la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli tajhari baadukum li baad seen kàddu bu leen koy yëkkati ci kaw kàddu gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu leen yëkkati aw turam bu leen yëkkati kàddu ci bu ngeen di wax ak moom comme ni ngeen ko defee seen diggante yow ñu yëkkati kàddu gi yonent bi nga yëkkati geneen kàddu léeg-léeg sax yéen ngeen a ngay wax fële di cox coxi yellante woon nga ñàkk a teewee place boobu mu doon gën ci yow mbokk yi ndax loolu du màndarga ci màndargay soppantal ah, en euh, fait bal dama naan ana teggini ni nit sax balaa may wax ana teggini lislaam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci cadre nit rek xadisam jombe na loolu waxuma la nag ci cadre l'islam am na juróom-benneelu tomb ci wàllu soofental mooy gàddaay ahlu sunna yi ak da leen jëw saboote loolu nag mën na nekk soofentalu xol mën na sekk soofentalu jëf guñ jëmale ci ñi nga xam ne dañuy lëggéeyal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola mën naa feeñe ci jox gannaaw sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jeexitu ñi nga xam ne dañuy jëfee sunna wala da leen jëw da leen saboote da leen de wàññi seen dayoo de contesté lu baree bari ci ñoom lu ba moo xam nag loola lu feeñ la wala lu nëb mbokk yi même foofu nañ koy bàyyi xel léegi-léeg contestation dangay ngay jàpp ne da ngay dimbale diina fekk yaa ngi lor diina nga yaakaar ne yaa ngi jëriñ fekk da ngay boo demee ci kii ngeen contesté kële nga dem ci kële ngeen contesté kële kuy defati mboolem waa sunna ñoo sikk bu boobaa bu ñëpp sikkee sunna nga sikkal kon day jaadu mbokk yi ñu xam dëggantaanu ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko ubbee woon waaye itam nag ci mujj ñu xam mandarga yi jëmmal soofental sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, naka noonu nag mbokk yi loolu dafay dem ba feeñ ci euh, soofental yenn place yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox dayoo lu mel na dëkkam booba di Madina jàkkaam jooja ak yemu ca wax ci ngëneel nga gis nit ku xam ne man na ci at mi mu omra ay yoon nekk mu aji waaye jaar Madina sax dafay jàpp ne loolu sàddeel ko la waa ci jidda rek jubal màkk bàyyi ko ma ama waaw xam nga ah yéen tam xam ngeen ne affaire bi nag affaire bi nag màkk la nekk nag affaire bi màkk la nekk waaye ndax madina bokkut ci sunna yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wax jàkkaam ja ak lañ ko jagleel ci ngëneel wax jàkkay xubaa ak ne ku fa julli genn julli am tiyaaboy omra rawda boobu nga xam ne mu ngi ci biir jàkkaam ji yonent bi rawda min riyaadil janna jardin nga war koo jox xel war koo jox a ci place booba yërmande yàlla di wàcc sa kaw texe di la muur armel Madina ak ya ca Uhud baqe ak bu Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan déplacé di ca dem sunnaay place ko def ci benn pañe maaka moo am importance te ci soo ak yonent bi salaa sallam la bokk euh, juróom-ñetteel ci soofental ak yonent bi salaa alayhi mooy bañ a xam mbir yi nga xam ne yàlla jagle jagleel na ko yonent bi salaa alayhi wa dafa am ay jagle dafa am it ay kaawteef wala man ak lottalaate mu am it ay njommalaan yonent bi sallallahu alayhi wa ci misaal dama naan la am ay karaama waaye bul jaawale karaama ak mucjisa karaama dafay feeñ ci mbir mu xam ne cosaan bala yàlla barkeel ba mel mu nuñ ko baaxoo wu doon lu mel ne baril aw ñam wala xeetali ci naa wala yeneen yu du mel noonu yooyu yàlla subhaanahu wa taala daf ko def muy xarbaax loo xam ne mën naa yegg sax ci kudut yonent waaye mu gën a dëgër ci yonent waaye mu am lu xam ne buñ ko waxee wolofam dëggantaan lottalaate lañ koy tuddee mooy mu'jiza dafay nekk mbir mu xam ne benn yàlla daf koo jagleel yonentam ngir mu firndeel ne yàlla ko yónni wala mu nekk benn défi bu xam ne kenn du ko mën a relever loola day sax ba faaw wute karaama mi nga xam ne day jaar jàll day jaar jàll te borom baañu ci woon dara sax noonu la ñu noonu la ñëwee ci moom mais mucjisa moom dafay sax dàkk dara du ko soppi soppeeku jamono yu ni mel du soppeeku yooyu dañ ko war a ràññee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante karaama bi nga xam ne kurul moom am na ca cër ak mucjisa bi nga xam ne moom kenn moo ko jagoo ak xasaais yi nga xam ne ci wàllu atte ba tey particularité la yu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo ci misaal dagana denc lu ëpp ñeenti soxna particularité yonent bi salaa sallam la mojisa yi nga xam mu am xar baax bu xam ne mën naa am ci yonent am ci lu dul yonent waaye du mbir mu sax muy jaar la yii ñàkk koy ràññee daajale yépp ci menn mbuus daal di ko tuutal fe war nar feeñal ne am na ci ñenn gaa yu xam ne yu ni am na ci loola dafa bokk ci soofental bokk ci soofental àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ci lu gàtt sos ci diina ay bidaa ak nu bidaay mën a toll ci ëppal yeggu ca waaye bidaa la tudd yi ñu sox ci diina daal la waralu ko lu dul soofantal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp na yonent bi liñ ko indi li mu indi moom dafa manqué waaye lii daf cee war a bokk wala li indi yonent bi indi am na ngëneel waaye lii itam am na ngëneel ila axiri fukkeel bi ak benn soofantal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana feeñ ci bañ a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala néew a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ca nan koy waxee sax nag te mbokk yi fii lu baree bari ci ñun jàngalekat yi dañ cee dugg surtout nag soofental ak yonent bi ci julli ci moom ci mbind jàngalekat yu baree bari bu ñu bind qaala rasulullahi salaam saad laam ayin qaala rasulullahi saad est-ce que salaam moom mooy dëggantaan sallallahu alayhi wa sallam maanaam abrégé sobi sallallahu alayhi salla sallallahu salla mooy saad bi mooy salla laam bi laam bi mooy laam ayn bi mooy alayhi salaam wala saad mbokk yi lii dafa bokk ci soofental àqu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa mbind mbir yi nee naa leen ci départ bu ñu ko foogee rek ñu sori ña ñun ñu ngi ci biir lu bari ci ñun ñu ngi ci biir illa ma rahima rabb kon da ngay fekkee même ci suñ jotaay yi wallahi suñ jotaay bi da ngeen yaakaar ne mucc na ci ba ñu commencé muhaadara bi ak léegi ñaata yoon laa tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaata yoon ba ma ko tuddee yéen ngeen wax sallallahu alayhi wa sallam ndax saa yu ma ko tuddee wax ngeen sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi est-ce que loolu bokkul ci gàttañu pourtant man su ma ko tuddee bu ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ma ne tudd naa ko benn yoon ñaar yoon ñetti yoon waaye ñun ñenn ci ñun dañuy toog ci jataay ñuy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo dégg ñu ñu julli ci moom rawatee nag fa jataay bu xam ne tudduñ ko ñu mën a jógee ca jataay ba te fekk duñ tudd aw turam benn yoon mbokk yi loolu mooy dayob nay mooy dayob soofental ci àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fi may jeexale mooy euh, beneen wàll bu xam ne euh, ñu bari ci ñun dañ caa dugg te mooy jàpp li ñuy tuddee sensibilité bu jéggi dayo sensibilité bu jéggi dayo bu xam ne dafa dal ñu bari ci ñi askano ci sunna mooy xam moo xam ay individu wala ay mbooro loola nu muy amee mooy gis génn dayo wala màggal gu xam ne dafa am ñu ko ameel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak waa këram yow nga jàpp ne googa ak dayo googa boo ko nangulee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booy nettali yooya ak taxawaay yooya da ngay ragale niroo kuréel yooya kuréel yooya ëppal ragal boo naga ragal a niroog kuréel ëppal tax yow nga retiré wu ci googa màggal te googa ormal googa dayo bu xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak am waaye gis nga ne am na kuréel yu xam ne ñoom dañuy wax wax yu ni mel te da nga ragal seen ëppal nga far nga bàyyi mu ngi mel ne waa ji def ay jaamu yàlla seytaane ñëwee ko gannaaw ne ko da ngay ngistal mu fa bàyyi jaamu yàlla ga wuutee wut ak ku gis chia yi ma gën a xóotal chia yi wala nit bidaa yi am yenn yu ñu yëkkati dayoob yonent bi yëkkati bu xam ne it yonent bi daf koy yeyoo màggal bu xam ne yonent bi daf koy yeyoo orma ju xam ne ahlu bayt yonent bi dañ ko yeyoo waaye ñun ñu rëkkile ca loola lan mooy suñu lay mooy bañ a niroo ak ñële lay jàngoro jooju man damay ragal euh, daanaka ñu ñu ci mucc ndem am nañu néew a néew la ndax maa ngi xam benn jàkk ñu tuddee ko Ali ibn Abi Talib euh, am na ñu ci am ay gendeeku te ñu mën a tuddee Omar ibn Khattab jàkk duñ ci am gendeeku ñoo mën a tuddee Ousmane jàkk duñ ci am gendeeku mais Omar ci xulafaa raashidiin la bokk ci saha ci Ali xulafaa la bokk saxaaba yonent bi la bokk bum la tax a gotti àqu yonent bi sallallahu alayhi ci lu mu yeeyoo bum la tax a gotti àqu ahlu bayti nabi sallallahu alayhi wa ci li ñu yeeyoo nañu xam yonent bi li mu yeeyoo ci mbëggeel mu yeeyoo ci màggal li mu yeeyoo ci ormaal li mu yeeyoo ci wegeel ñu jox ko àq ji nga xam ne moom la ko yàlla jox ñu moytu ëppalu ëppalkat yi waaye ñu moytu itam soofentalu soofentalkat yi xam ne li gën ci mbir yi mooy la gën gën a nekk ca dëgg ba digg ba ak màndu ak jàpp digg bi nga xam ne ca la saxaaba yi ak taabii yi nekkoon moom mooy yoon wi jub ci matale àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu mën a mucc ci soofental mën a mucc itam ci ëppal waaye itam ñu mën a jox yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam àq ji nga xam ne yeeyoo na ko ci cofeel gi nga xam ne ñi ñu jiitu jox nañu ci misaal yu xam ne misaal dabu ko wax mala di ko féete kaw ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu teete ñu ci lépp li gërëmam nekk ba ñu def ko ngir moom dong mu nangul ñu ko mu musal ñu ci lépp lu xam ne day jur am meram mu sori ko ngir sàkku ngërëmam mu nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad macha allah jazaallaahu al imam xayran yal yàlla fayal yow imam ci waxtaan bu am solo wi mu ñu gaaralal foog naa ne waxtaan yu mel nii moo gën a mat ci yeneen taxawaay yi xam ngeen ne jamono ji gis nañ ay song yu bëri yu ñuy song jëmmi suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye di xulu ak ñooñu wala di songanteeg ñoom xeex foog naa ci yoon wi la gën a efficace delloowaat ñu delloowaat ñu ci xamal ñu kan mooy suñu yonente alayhi salaatu wasalaam lan mooy àq yi nga xam ne amel nañ ko ko ñu xam yooyu taxaw ci buñ ci taxawee rek loolu mooy tekki ne formé nañ suñu bopp formation boo xam ne lenn luñ koy tuumaal du dugg te itam danañu am ay jikko yoo xam ne suñ ko wanee ñeneen yi lépp luñ tuumaal yonent bi yàlla yebaloon ci ñun mu formé ñu kenn du ko gën kon fii mooy yoon bi ñu ngi sant imam baax baax di ko gërëm ci disponibilité bi ñu mbokk mi ñëw noddu su daanee la insha allahu taala bu amee ay laaj ki tontu looy kuy taaliq feeg deux heures et quart ñu julli insha allahu taala الله Thank you. laaj wala ñaar incha allah maa ngi koy soo mu kenn ko laaj wax waaw tur yi ah Mouhamed Cheikh ndax am na keneen ñu jël tur yi dégg nga Mahmoud Fall hmm. kon ñaar ñu ngi waaw Mama Seck eh, yëkkati baat bi tuuti basharun mislakum ñoom innama ana basharun mislakum kon moom nit la ba muy dund comme nit waaye ba mu faatoo dafa yéeg ci kaw martaba nit ba passé martaba malaayika ñun loolu li koy jëmmal mooy moom ba mu demee ci isra wal mi'raj demoon na ba passé foo xam ne malaayika yi mënuñ fay jàll mooy sidratul ci. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak malaaka euh, loolu lu ràññeeku la ci wax borom xam-xam yi bal euh, yonent ci euh, saxaaba yi ak malaaka yi même borom xam-xam yi am nañu wax foofu ci gën a lante seen diggante te ñu ngi ko tegtaloo ci aaya boobu ci sootu ci sootu tahrim fu yàlla subhanahu wa taala wax ne in tatuba ilallahi faqad saxat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna allah huwa mawlahu wa jibrilu wa saalihul muminin ba pare ñu soog a wax mu soog a wax wa malaikatu ba'da zalika zahir eh, yàlla subhanahu wa taala dafa tudd eh, par féete eh, bu yàlla féete yonent bi féete gu jibril féete ak yonent bi euh, ba pare ne jullit yu baax yi ñu ngi féete ak yonent bi ba pare soog a wax nag yeneen malaaka yi ñu ngi féete ak yonent bi borom xam-xam yi ñu ne taqdim ak taasir boobu feeñ ci jibril ñu ñàkk koo tudd ci saalixul muminin amuñu weerante kon jibril gën saalixul muminin waaye taqdim bi ñu def saalixul muminin qabla wal malaikatu ba'da zalika zahir loolu mën naa jox place ne saalixul muminin ci xam nañ ne aaya bi mu ngi junj booba Abubakar ak Omar ñi nga xam ne eh, ñoo jur ñaari soxna yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amat problème eh, ñu ne kon mbaaxaayu eh, Abubakar ak Omar mën na féete kaw mbaaxaayu mbaaxaayu yeneen malaaka yooyu su fekkee nag loolu xëccoo la ci biir borom xam-xam ci diggante saxaaba yi ak yeneen malaaka yi dul jibril euh, loolu dafay walaabal mu wàcc xëccoo boobu day walaabal mu wàcc ñu indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak même jibril ak yeneen malaaka xam nga ne borom xam yi am nañu réticence bu métti diggante nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci nit ñi ak nga gën ci ñii wax moo gën ci nit ñi lan moo leen yóbbee kàddu googu am réserve ci ngeneel googu yóbbaale na mbooleem malaaka yi wala yóbbaale wu ko ñi nga xam ne dañu ne yonent bi moo gën ci mbooleem mbindeef yi dañu am réticence boobu dañu jàpp ne ngeneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, na kaw loolu loolu beneen domaine la bu bokku nag yéege yonent bi sallallahu alayhi pour lu palaasam wallahu aalam mu ngi ci yéege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci palaasu yàlla subhaanahu wa taala te am nañu bare bare nañu xam ne seen xaabaabal yegg na foofu masala jëlal ci misaalu ki wax ne wa inna min juudika dunya wa darrataha wa inna min ilmika ilmi lawxi wal qalam ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa tabe àdduna aw mujjam ca la bokk yow yaa ñu ko baaxee yaa ñu baaxee àdduna ak mujjam wala mooy mujj àdduna alaxira moo tax si Abdou Ben Baas dafa ne su fekkee addunya wa darrataha min juudi rasul sallallahu alayhi wa sallam fa maa baqiya li rabbil alamin kon borom bi fi moom lan la deseeti loolu loolu xabaar yéegi ko ci àq yàlla subhanahu wa taala foofu amuñu ci weerante ne moom lu jéggi dayo la mu masalan nga gi jël itam wa innahu is araada allahu nasatana abaana min nuurihi nuuri nabil alam eh, ak yeneen yu mel xalaabal yu mel noonu foofu la borom xam-xam yi waxee waaye diggante moom mbindeef yi moom amul eh, ci amul diggante buñ ci araamal mu ngi nekk ci diggante saxal ak weeral wute di leen te saxal ak wuute foofu la am waaye yeggut ci euh, ñu tuddee ko ab xaaba abal wallahu alam barakallahu fi yaa imaam euh, euh, ci wàllu ci yonent yi sallallahu alayhi wasallam ci jotaayu xam yi ndax da nga koy wala da nga koy yelu suñu xol yi sallallahu alayhi wa sallam nga biral ca kaw waaye ñëpp solo mooy li yàlla digle fii julli sallallahu alayhi wa sallam nga julli ci moom julli googa mën na nekk ci baat bu génn bu xam ne dina fàttalil ki ci sa wet te du nekk ci dayo kowe bu xam ne dafay perte de jotaay bi waaye itam mën na nekk ci sa kàddu goo wax ci suuf parce que yàlla nga bëgg mu dégg ko du nit ñi nga bëgg nga dégg ko lu dul rek mu nekk fàttali ñi ci sawet nga wax ko ci waxin wu dem sallallahu alayhi wa sallam ki ci bu fàtte woon mu fàttale ko waaye eh, buñ ci sant woon fokk ñu yóbbu ko ci kaw allahu alam ñu bàyyi جزاكم الله خيرا عندي كان بعض الامام الاستاذ وكان القضيه الاولى ñëpp dinañ ci jëriñu ci bañ a ëppal bañ a foyante itam li nga xamante ne moom mooy àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax àq gënu koo rëy ginnaaw àq borom bi subhanahu wa taala yal nañu borom bi subhanahu wa taala boole ñi nga xamante ne ñooy matale àq yonent bi jox ko la mu yeyoo lépp te boole ñu ci ñi nga xamante ne ñooy yeyoo ak ràmmam itam bu yowmal qiyaame ñi ngi santaat bu baax a baax imaam ci déplacement bi ak itam waxtu wi nga xamante ne jël nañ ko ci moom yëpp di ko ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def loolu lépp ci misaana xasanaati yowmal qiyaama yëkkati ay darajaam fii ci àdduna ak ci alaxira euh, di leen sant yéen yéen ci seen teewaay incha allahu taala di leen jox dige euh, daje itam ci beneen jotaay incha allah conférence yi incha allah liñ euh, fas yéene mooy weer wu jot dina am conférence publique boo xamante ne nii euh, danañ woo kenn ci borom xam-xam yi mu ñëw euh, waxtaan ak mbokk jullit yi incha allah bu ñu jëlaatee datu beneen constance bi ak thème bañ koy waxtaanee dinañ leen ko jot li wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin